aussi SG yi fi nekk yëpp ak euh, les invités pour point de presse bi nga xam ne tey dañ ne dañ koy tenir dañ koy tenir bi nuy nga xam ne bii euh, situation école bi moo ko demandé parce que am na école bi am na crise école bi am na jax-jax école bi am na jax-jax ah, gouvernement bi woote na daje na ak i syndicat muy syndicat yi nga xam ne ñoom lañ tudde syndicat yi nga xam ne ñoo plus représentatif muy waa g daje nañu euh, bi ñu dajee am na lu ñu proposé am na lu ñu diggee ba ñu ko diggee am na juróomi syndicat yoo xam ne signé nañu am na juróomi syndicat yoo xam ne ñoom dañ ne mënuñoo signé dee ñu signé mais bala ñoo signé dañuy seeti ñi nga xam ne ñoo leen yebalan euh, donc situation boobu euh, ñun waa G20 duñ mënuñu ko rafetlu bien vrai que le gouvernement bi joxe xeebuñu ko mënuñu ko xeeb. mais dañu xam ne mën naa ñoo am lu ëpp lii bu ñu àndan am lu ëpp lii mais ànduñu G7 bi nga xam ne bii sax ñoom lañ ne ñoom ce sont les syndicats les plus représentatifs ñoo dem élection ñoo gagné dañoo tasaaroo léegi g cinq nga fay G2 nga fay alors que le G20 est là. incontournable GB ku ne xam ne mënuñoo def dara ci Sénégal ci jàngale fi mu te waxu waa GB bu ñu waxut ak ñun ca kawit ñuy wax ak ñun ci suuf parce que xam nañ li ñu topp ci jàngalekat xam nañ aussi ñi ko jiite engagement bi ak détermination bi ñu yore parce que loolu moo am solo ñoom it xam nañ ne comme ni ko Mamadou Diop Castro doon waxe boo gëstoo gis boo làmbee daj foo faut nga ñemee loolu tam moo dal les SG yeeg plénipotentiaires yi nga xam ne ñoo ŋànk G20 ah boo xoolee li ñu dig nga xam ne am nay jafe-jafe dangay xool jàngalekat yi ñu nu yemal ay diplôme ñu nu yemal yu seeni salaire xaaju du te jàngalekat dafa sonn ñoo nekk dans les coins les plus reculés du Sénégal foo dem ci àll bi ñoo nga fa ku réussir tam ci jàngale nga yomb ñii ñëpp journaliste yëpp ci jàngale lañ jaar ak ñeneen ak ñeneen donc pour vous dire que jàngale jàngalekat war nañ ko jox gëddam ah, mbir mi dafa dem ba nga xam ne bi même suñu biir sax am na ci problème ay jafe-jafe da ngay xool tey benn professeur d'enseignement mooy nga xool benn instituteur l'instituteur waaw donc ma collège de mon collège du moins nga xool tey l'instituteur instituteur bi nga xam ne bii dans les coins les plus reculés moo fay dem instituteur bi ñaata heure lay jàngale par jour donc bu ñu xool par rapport a la pénibilité de la tâche rek par rapport ak coono liggéey rek instituteur bi war nañ ko jox gëddam professeur d'enseignement de collège boobu ñu wax léegi bag la am teg ci ñaari at bi bac la am ak benn at mais boo xoolee li leen di jox dafa soree lool waxuñu ñu wàññi ñu wàññi la ñuy jox ñi li mais dañ leen nañ nañ yemale ñëpp la wax ca mbo mbo eh, liggéeykat yi Sénégal gépp ne ñen yemale ñëpp loolu lañ wax nañ même ci biir jàngalekat yi neen yemale ñëpp donc moo tax ba eh, yooyu yëpp am eh, situation bi nag li ko waral lépp ñun comme ni ñu ko waxee rek mooy ñàkk ànd gi ba ñoom li ñu signé am na lu ñu signé mais li ñu signé am na lu bari lu ñu bàyyi nee nañ dañu amaat ay beneen ndaje le 3 ak le 5 waaye yow yaa ngi daje pareegoo nga signé yow ndaje boobu est-ce que yow dina fa am ñi signé ñooñu signé nañ pare mais dafa am question yoo xam ne dafa am importance ci école bi yoo xam ne yii boo ko jëlul. jàngalekat yi duñ ci gis seen bopp mais examen yi dañ leen di yóbbu yóbbu la indiwaat bala da fay fay am ñaari fan des fois ngay dem ak a dikk di paas boo amee ab 5000 ci la yem nga pare ñu ne leen kaay leen corriger bu ngeen di corriger ñaata feuille la ñuy jox instituteur bi bu corriger pare xam nga lu koy wax merci alors que dans le même secteur de l'éducation les professeurs bu ñu corrigé dañ leen di fay ngay fay professeurs yi ne doo fay instruire te dañuy corrigé te correction bu metti la ñuy corrigé double correction la ñuy def ba pare taux forfaitaire rek la leen jox kooku moom nous sommes d'accord que y a un taux forfaitaire bu ñu lay jox des fois mën nga corriger après on te donne 3000 francs de suite donc yooyu dafa bari ay jafe-jafe ci école bi yoo xam ne yi eh, li ko doon le moo doon daje gouvernement bi xañ na waxtaan ak moom mais delluwaat waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo la yónni woon mais boo xasee signé ah lenteur administrative bi day day continuer retraite à 65 ans ba ñu waxan day continuer parcelles yi ñu waxan fu ñu ciy toll donc loolu euh, ñun véritablement moo tax ba ñu ne dañuy daje wax ak jàngalekat yi wax ak euh, parents bi ñuy déglu wax ak ñëpp xam ne xeex bi li ko li ko waral lépp mooy gouvernement bi li mu doon wax lépp def li muy wax day signé accord mais bu ko signé pare du ko defe accord yi 2014 am fi accord yi 2018 am fi ba ñëw ci 2022 te plateforme yi boo leen xoolee li ñuy kaas presque loo rek la système de rémunération bi ñoom fexe nañ ba ba jalgati ko gouvernement bi fexe na ba jalgati ko ndax na gars yi ba dugal ci ay kéem ba joxe lim mën a joxe mais dañ neen un système de rémunération ci dans un pays dafa am ay textes yoo xam ne ñoo koy ñoo koy yor textes yooyu même diplôme même salaire mais boo joxee ñi cent 400 cent ñëw ne ñii ah yéen 50 100 25000 donc ñoom ñoo indi problème yi donc moo tax ba loolu ñun euh, léegi daal li ñuy def mooy ñun ba jóg jotee jóg nañu bien vrai que g moo jëkk G2 moo ñoo jëkk grève mais ñun suñu prévu dafay expiré rek ñu commencé. commencé nekk ci terrain bi bi ñu nee ci terrain bi euh, ci la ñu sax G5 door a fekk ci terrain bi kon ñoom ñoo ñun ñoo ko ci jiitu li ñu ko ci jiitu moom euh, tax na ba mën nañ ne tey ñoom ñoo mujj ñëw ñoom ñoo jëkk a signé ñoo mujj a ñëw ñoo mujj ñëw ñoo jëkk a signé loolu moom ku ne xam na pour dire que en tout cas ñun euh, dañ ñoo yónni woon li ñu doon xeex bale moom la ñuy xeex def nañ nag plan d'action cinquième plan d'action bi suñu juróomeel yónnee nañ ko yónnee nañ ko euh, le mardi premier dañuy def débrayage à 9 am ay assemblée générale am na ci yoo xam ne sax waa direction bi du g ñoom ñooy dem superviser ji ko ñooy dem Mbour ñooy dem Thiès ñooy dem yi loolu moom mën naa ko firndeel ne foofu moom déjà ñoom ànd nañ pour dem fa